jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak seen télévision As-Samadiyya TV mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci ànd bi ak ñun mbokk yi ñoo ngi jiital nag ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mountakha Mbacké Serigne Bachir xalif général kullu murit di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér bay mboolem yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasoul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ànd ko moom ñaanal ko itam njabootuk Serigne Touba Xaadimu Rasuul gépp taalibe Serigne Touba yi ak sunu mbokku uh, jullit yi mbokk yi As-Samadiyya TV ñëw na ci pàkk bu tedd As-Samadiyya TV ñëwati na ci bis yu sell yi nga xam ne moom la ñuy defal njabootu ku tedd ki Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo xam doomam yu tedd yi moo xam sëtam yi moo xam uh, cheikham yi waral na kon tey ji ñu teg suñu fi nga xam ne moo di ci ndaam Daarul Alimil Xabiir dëkku euh, Serigne Ndam Abdourahmane Lo mbokk yi tey bi nga xam ne moom la ñu koy euh, defal euh, fii ci Ndam Daarul Alimil Xabir seen télévision As-Samadiyya TV kon teg fi tànkam incha allah ñoo ngi nii kon fii nga xam ne moo di ci kanamu kër gu mag gi danañ dugg ci biir léegi ànd ak sama caméraman Oumar Sarr bu ko defee kon ñu ànd ak njaboot gi ci ay interview ak i waxtaan yu am solo yoo xam ne lépp dana tonk ci bis bi ak borom bis bi kon yéen ñi bàyyi xel As-Samadiyya TV kon nañu ànd dem ci biir bu ko defee kon ñu découvrir bis bi ni nga xam ne kon noonu la ñu koy taxawoo tey fii ci ndaam Daaru Alimil Xabiir ak équipe bi nga xam ne kon ñoo seq liggéey bi bu ko defee kon lépp incha allah dana teew ci seen télévision As-Samadiyya TV kon ñu ànd dem ci biir incha allah. mbokk yi kon ni ñu ko waxee woon léegi ci penc mi ñoo ngi fii ci euh, Daarul Alimil Xabiir. pàkkub sëriñ Daam Abdourahmane Lo ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ko fi njaboot gi defal ci njiital sëriñ Bachirou Lo ci jamono ji nag euh, ñu nekk ci wetu ki nga xam ne moom moo amee communication magal gi di sëriñ Fallou loo ci wetam la ñu toog xam ngeen ne kon yitte ji mooy mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci organisation bis bi euh, taxawaay bi nga xam ne kon moom la ci njaboot gi def waaye itam euh, jëmmi borom bis bi itam lu mu ci mën a xam ne itam fàttali ñu ko dina ci am solo lool sëriñ bi kon ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi di ci ziar As-Samadiyya TV kon ñëw ci seen wet ngir ànd ak yéen bis bi ni ko baaxoo defee ci bisi Serigne Touba yëpp rek bu ko defee kon euh, kàddu gi jëm rek ci xamle mbirum bis bi borom bis bi ak itam lépp lu tënk ci wàllu organisation màggal gi comme yow la denk lépp loo xam jëm na ci wàllu communication bi. asalaamaaleykum euh, wa rahmatullah euh, sëriñ ñu ngi lay nuyu baax a baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy As-Samadiyya TV ak mboolem ñu fay liggéey. nuyoo boobu nag ñu di ko jaarale ci sëriñ Abdou Samad Mbakke émission bu moom mi nga xam ne mooy kilifa ak barab bi eh, di ko sant ci yitte ji ndax démb bi ñuy def eh, waxtaan wi rek eh, xamal nañu ne amoon na yéene teewe ko bi mu xëyee itam yebal na fi ay ndaw kon loolu yitt yitte la te lu jiit loolu am na yitte yoo xam ne it xam nañ ko ci ci kër gi yoo xam ne jëflin na ko waa kër gi kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax euh, sëriñ bi li nga wax léegi màggal gi ñu ko baaxoo defee rek muy màggalu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo di bis bi nga xam ne ci la sëriñ Touba jógee ceen Jolof doon dem Njaareem bi mu tollook Touba xam la ne dafa am ndigal ci mm, boroomam ngir fanaan fii ci ndam loolu mooy mooy sababu màggal bis bi xëy na daanañ ko màggal ci ay jamono bis bi mu fi génne bi mu delloo ci borom bi subhaanahu wa taala waaye ci nekk sëñ Saalihu Mbàkke la dégaloon xalifa suñ ndaam bu ñuy wax suñu Ousseynou ñu indi màggal gi ci bis boobu bi nga xam ne ci la sëñ Touba ñëwoon di ko ci di ko ci màggal boobu tey ñu di ko def euh, mu nekk loo xam ne it daanaka mën nañu wax ne ñu moom rek lañu am ndax sëriñ Touba moom moo toll noonu fu jaar fu ne. day barkeel lépp day barkeel ñu màggal ko ni ñu ko baaxoo màggale ci alxuraan ak lépp luy ñaan waaye lu jiitu bis bi démb ñu amaloon benn wa benn plateau boo xam ne bu yaatu la daanaka xaw a jege sax ab conférence boo xam ne defoon nañ ko démb ngir waajal ko màggal gi tànn ci ay téemi xam-xam tànn ñenn ci ñi nga xam ne ay taalibe lañ woon di taalibe sëñ Ndaam àndoon sëñ Ndaam ñu jël seen njaboot ak Eh, deneen darajaay bi sowu ngir jëmmale ko ñu tànnoon ci njabootu njabootu kuré muy njabootu caween gi nga xam ne ñu yàgg suñu daam lañ eh, ay taalibe yoo xam ne seen lépp suñu daam lañ ko jox moo tax ñu ñu darajaal ne bis boobu ngir fàttali ko muy démb tey bi ñu xëyee jàng alxuraan ba digg bëccëg sëriñ bi teew ak mboolem taalibe yi ñu xatmu alxuraan bi ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi ñaan jot jottali fa ay kàddu cant yi nga xam ne moo war a jëm ci kilifa yëpp ci euh, état beeg média yeeg kilifa yi diine yi mm, rawatina cant gu jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax lépp lu muy def rek ci ndigal la koy def noonu lañ ko xëyee euh, bu ko defee noonu ñu wéyalee siyaar yi ak jàngu xasida mi noonu lañ koy wéyalee ba ngoon mooy mooy màggal gi bu defee nag ki nga xam ne moom la ñuy màggalal di Serigne Dame Abdourahmane kenn la woon ci kàngami Serigne Touba yi di kenn koo xam ne bokk na ci ñi njëkk ànd ak Serigne Touba ci Mbacke Kajoor ba Serigne Touba woote ca Mbacke Kajoor ca woote ci ñi ci ñi njëkk wuy si Serigne la bokk ànd moom it nag euh, bi sëñ bu jógee Mbacke Kajoor di ñëw Mbacke ba muy ba muy sanc Daaru Salaam ba muy sanc Touba ba bi muy dem ci Thiène Diof lépp sëñ dama ànd na ja loolu lépp boo demee ci marché bi nga xam ne. sëriñ Moussa Ka marché yàlla na ko suñu daam na ko ci fekk nga ànd na moom nekkoon koo xam ne nag dafa amoon ab diggante bu dëgër bu amoon diggante ma sëriñ bi lu jiitu yoon wi sa yoon wi sosu ndax la ciy ne mooy sëriñ Massamba di rek sëriñ bi bi mu feeñee jamono ba ko sëriñ Touba di joxe aw booba àndoon ak sëriñ daam te boobu yoon wi taxawagut kon loolu daa am lu muy lu muy lu muy wane ci diggante boo xam ne am na ci seen maanaam seen diggante. bu bi bi nga xam ne ànd na foofu sëñ bi ca Touba ba Ceeñ Jolof ba natt bi bi nga xam ne moom la suñu boroom tegoon ci sëñ bi te muy nattu bu diis boobu te sëñ bi war koo war koo yanu muy dem ci géej gi boobu nag fekk na lu jiitu loolu samp na ay daara yoo xam ne ñoo war Touba mooy diggante sëñ Massamba Diop Sam sëñ Ibra Sara Njaañ ak sëñ Ndaam Abdourahman sëñ Ndaam daara moo nekkoon ci ndaamatu fu ñuy wax ngelamu bi ko sëñ bi wàcce it joxal ko benn liggéey te mooy sampal ko daara indi fi njabootu boppam Cheikh Modou Fadal Cheikh Modou Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou ndax ñee ñoo fi njëkk ñëw sëñ Bachirou euh, ci Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoulahi Cheikh Ibrahima euh, hmm, daanaka euh, ak ci lenn ci jigéen ñi ñu bari soxna May soxna Musli ñëpp daanaka fii leen jàngi alxuraan sëriñ daam nekkoon ci loolu sëriñ Tuubaa digaloon ko nag mu jël yitteem yëpp def ko ci muy jàng ak jàngale yar ak yare euh, sëñ Basiru day wax ne sëriñ ndaam li mu daan taxawee alxuraan ci guddi yi nee li muy bare bay daawu ko yàqal bu xëyee li war a def ci ci ci nemmeeku gan yi ak jàngale te doo gis ci moom benn coono kon taxawaay la amoon ci ci ci wàllu euh, sëriñ bi itam dugalu nga ci boppam wóolu woon ko nag dénk ko njaboot mooy gu ndaw ak yi doon jàng waaye dénk ko waa këram mooy waa barsàq ñi waa barsàq ñi am nañ ci kër gi lu toll ci eh, ñaar fukki at yoo xam ne ñu ngi fi moo tax am ci lenn ci njabootu sëriñ koo xam ne fii lañ feeñee jamono loolu suñ Musaa ko wax nañ ko waa kër ga sax nañ fa kem moom kem ca moom kem nit nit di at sëriñ Mor Penda Lo di rakki sëriñ Maxtaar Binta di borom xam-xam bokkoon ci magi sëriñ bi am na fu mu bind ba ba muy leeral ci benn loo xam ne da koo fekkee euh, daa bokk na ci la mu wax ci ba ba muy wax ndax daa wax ca biir wax ja ne am na bis sëriñ Touba euh, woo sëriñ Ndaam am lu mu koy leeral jël jël jël suuf def ca loxo ba ne ko suuf si mboolem jiwu àdduna ak alaaxira ma ngi ci sëriñ Mor wax ne keroog itam sëriñ Ndaam sëriñ Touba da koo digalaat mu gën a góorgóorlu ci soxna yi fi nekkoon. waaw kon loolu euh, day maam dali la ci mm, ci ne waa kër gi fi lañ fi lañ nekkoon yaakaar naa bi ginnaaw bi fi sëñ bi jógee la leen sëñ Modou Moustapha jëlee fii yóbbu leen Njaareem moo tax sëñ Abdou fi lañ fane jamono sëñ Mouhamadou Mourtada ak sëñ Ibrahima Mbacke kon loolu ak ak ak woon wóolu ko ci njabootam wóolu ko ci këram loolu am na sëñ Moussa Ka fu muy wax naan euh, ne mas na ma dégg sëriñ bi di wax Cheikh Abdou Mbacke moomam naa a tax may wéet fa raxmaana feereel ne fitna yi kër kër kër ji làmb ci kër ab doo ko ji man jox naa ko kër ak kër ji làmb ci kër mooy mu ba mën a wéetal borom subhaanahu wa taala euh, sëñ bi ko defal defal lépp jël muy samp muy taxawul kër sëñ bi jël rakkam di jigéenu jigéenam mbokk maam Cerno di soxna Aminata Mbàkke mu jox ko loolu si ki ab jaxasoo la e, yëmu ci loolu waaye sëriñ bi jël doom yi sëñ ndaam yu mag yooyu yu jigéen yooyu jox ko ay doomam ndax soxna Aminata Lo doomi ndaam la wala soxna Fat moo ci mag di doom yi soxna Aminata Mbàkke mu jox ko sëñ Amar Fall jël soxna Aminata jox ko sëñ Mouhamadou Moustapha mooy moo wajuru sëñ Mbàkke Madina ak soxna Mariama jël soxna Aslo doomi sëriñ ndaam jox ko Cheikh Modou Fadal muy wajur son son bi fàllu ginnaaw ñooñu mu jël soxna Mariama jox ko sëñ Basiiru am na fa am na fa sëñ am na fa ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak sëñ Modou Ablaye ak soxna Daba ñoo ñëpp di ay ay doomi suñ ay ay doomi suñ daam kon sëriñ ku ku ku ku jaxasoon sëñ bi la gannaaw bi itam Euh, ku suñu Mutula mu ngi soxna Roma suñu Abdullahi mu ngi soxna Bintu ñëpp ay doomi suñu daam ci ñu ngi ci biir kër suñu Tuubaa nekkoon koo xam ne itam ku fonkoon ak jaxasoo la fonk ak mbokk mbokk yi ko yàlla boole woon dafa amoon ak ñoom jaxasoo ci ndey ak ci baay rawatina mbokk ñi nga xam ne ay jarbaatam lañ nga xam ne ay seen ay jigéenam ñoo ñoo ñoo ñoo ko jur muy njabootu soxna Farimata Lo ak njabootuk soxna Assa Ndiaye bi ak njabootu ñi ngi teqaloon ci diggante ndam njabootu si mata bint njabootu ñoo mbokk yoo xam ne dafa doon dox seen diggante ñoom loo xam ne ab jotaay maa mayoo ko euh, njaboot googu njaboot suñ Ibra Fari di ab jabaaram sëñ Ahmadou Dieng Mbacke sëñ sëñ sëñ Abdou Fari sëñ Moussa ñii ay jabaar sëñ daam yoo xam ne sëñ daam jëflante na ñoom ci rafetal ci ak mbokk rafetal goo xam ne nii jégg na doyoo ba jax ja foo leen mas a gis benn lay doon moo tax jotaay yu mel nii boo ñëwee njaboot gu ngay fekk mu nekk njaboot goo xam ne benn lañ mas a doon ba tey jii jotaay bi ñoom ñoo fi nekk kon loolu itam mooy rafetal gu mënoon rafetal ak mbokk xam li mbokk nit ñi te di ko dox nag di di di di daan ko dox seen diggante ak ñoom noonu itam la meloo nag mag ñi fi nekkoon ñi mooy mag mag ñi fi nekkoon suñ Tuubaa ba tax na lu bari ci mag ñi tudd nañ tuddee nañ ko seen i doom kon ni suñ ma ku mel ne Serigne Afia Mbacke si mel ne Serigne Issa Dieng ku mel ne Serigne Massamba Diop tuddee woo ko waaye doomam tuddee na ko Serigne Serigne Bass Serigne euh, Mbacke Bousso tuddee woo ko waaye Serigne Modou na ko euh, loolu ab jëflante boo amoon diggante ak ak ñoom la kon euh, Serigne ndam daal ku am na yërmande dal liggéey ci alxuraan siiw na lool daan nafila alxuraan ci guddi gi ñaar rakk waaw amuñu amuñu yërmande ci ñaanal taalibe yi bëgg ñëpp mucc moo tax mu daan jàng alxuraan yu bari bari ay kaamil yu bari di ko ñaanal taalibe yi ku ku mos a di ndaw dellu ci borom bi dala jàng fukki kaamil ñaar bu dee mag mu jàngal la fukki téeméeri kaamil kon sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax di jégalu ci kàddu yi di leen ñaanal ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh